jërë ngeen jëf mbokk yi jàkkaarloo ñun ci duñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen a ngi ànd ak euh, seen site internet 24 actu ñu am mbégte kontante gu yaatu nag tey sant yàlla julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla weeru koor wi dugg ci bisimilah rahmaani rahim ñu àggale ko ak alhamdulilah rabbi alamin ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla guddal fanam yokk wéram ñaanal itam Sénégal ñaanal àdduna bi yëpp mbas mi nga xamante moo fi nekk yàlla jëlee ko fi ci barke Cheikhul Khadim mbokk yi kenn ku ne xam na ni suñu tombaawa suñu tollowaa ci waxtu wi rek xel yëpp dana dem ci bës bu am solo bi nga xamante ni njaboot ak Serigne Mor Kayre daañu ko amal ci njiital Serigne Abdourahmane Kayre ak mbooleem njaboot ak Serigne Mor Kayre gépp Serigne mooy Kayre moom Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ba werokaanu Serigne Touba Khadim Rasoul ba wële moo tax nag bis boobu kenn ku ne xam na ni mbas mi dugg ci réew mii di Sénégal tax na euh, ñu fas yéene ci indi ay coppat ak i doxalin yoo xamante ni yu bees la dañu ko daan woote woote gu rëy taalibe yi bàyyi ko ci biir réew mi bàyyi ko ci bitim réew ñëw fii ci Daaru Xuddoos ngir amal bisub Serigne Mor Kayré boobu sant ko kañ ko bàkk ko ngir jëfam juré ji nga xam ni jëfal na ko Seexul Xaddiim waaye itam santale ko Serigne Touba Xaadim Rasuul ci may gu gi nga xam ne may na ko loolu nag moo tax ñu jàkkaarloo kenn ci jëwriñu kër ga di sëriñ mamoor Kayre di jànkatu xasida waaye itam di sëtub sëriñ Mor Kayre yore organisation euh, màggal ga moo tax nag sëriñ Abdourahmane ak mboolem njaboot gépp jox ko kàddu ngir nag mu jokkaarloog taalibe yi jàkkaarloog Sénégal jàkkaarloog mbooleem ñi daan woo wax leen coppatiku yi nga xamante ni am na ci màggal gi ak ren nan lañ ko fa yéenee defee sëriñ mamoor ñoo ngi lay nuyu de bëgg rek nga dikkal ñu ci màggal gi ren nan ngeen ko fas yéene defee ak ban anam ngeen ko fas yéene doxale ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre site bi nga xam ne mooy 24 actu ñoo ngi leen di siyaare bu baax di siyaare mbooleem jullit yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi ak njabootu Serigne Touba gi fi des yëpp ki noonu ñoo ngi koy ñaanal Cheikh Ahmadul Muxtaar Mbacke sunu borom yàggal ko fi ak Cheikh Ahmadou Mbacke sëñ Abdou Rahman Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mohamed ak njabootu sëriñ Mbacke soxna loogi sëriñ Xaadim Mbacke Mohamed ñu ngi siyaare bokk yëpp ah, ci turu sëñ Abdou Rahman Kayre sëriñ Moussa ñu ngi ñaanal sëñ Abdou sunu borom yàggal ko fi ak mboolem ay jëwriñam yëpp bis boobu nga tudd itam muy bisu sëñ moor Kayre bi nga xam ne moo waral tey ñu taxaw fii bëgg a jàkkaarloog askan wax ak ñoom. bis bi ban ko dalee def ak léegi 1951 la kon bu tey ñëwee ñu am ak coppet guñ ko bëgg a def li ko waral kon daa am lu tax li tax mooy bi nga xamee ne am na mbas mu dugg ci senegal yàlla dogal mbooleem njabootu adduna yëpp yëg ko ba nga xam ne ñëw na ci see Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu ko yëgee rek taxawaay bi mu ci taxaw wax ne mbooleem luy am ndaje luy niiru am ndaje rek nan fexe ba moytu ko ndax comme ci loolu lay jóge ñu fexe ba moytu yooyu ci la njabootu sëñ Mor Kéré gépp ànd ci ginnaaw Seex Muhammadul Muntaxa jëfe ndigal loolu mooy fas yéene nan ba bis bi ñëwee mbooleem fu nit nekk nan daa déplacé woo du jóge fu ne daayira sëñ Mor yi fépp lan daa jóge ci àdduna bi rawatina ndakaarook ak Mbuur ak Sànjara ak fépp ñoom ñëpp kenn ku ne fa waay nekk rek na nga ko defe foofa ndigal li mooy sëñ Abdourahmane li mu wax ci jëwriñam sëriñ Thierno Kayre ak euh, sëriñ Xaadim Kayre Taïf ak sëriñ Cheikh Gawane ak njaboot sëñ Mor gépp mooy fu waay nekk bu bis ba ñëwee boo ko mënee nga jàng Alxuraan jàng xasaayit def salaatu ala nabi def ko addee sëriñ Touba addee Cheikh Mor Kayre ak njaboot sëñ Mor Kayre gi loolu daal mooy ndigal li nga xam ne moom lañ jote ci sëñ Abdourahmane mu waxal ñu ne bu bis bi ñëwee nañ ci soññiwaat bokk yëpp euh, bu bis ñun ñi nekk ci kër gi daanu jàng arxaan wàcce wàccee def def salaatu na bi jàng xasaayit ñaanal sëriñ Touba ñaanal Cheikh Mor ak njaboot sëriñ Mor gi jut yëpp noonu lan fas yéene defee bis ba kon daal ndigal li mooy fu waay nekk rek bu bis baa nga yëg ne maanaam ñëw na waaye ñu defee ko noonu bokk yi ñu ko daaneel yëpp itam muy bokki daayira yi soppe yi bokki daayira yi sëriñ Mor Kéré yi ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye ñoo ngi leen di sant bu baax di leen wax na bu bés ba ñëwee itam soppeeku ko lii rek la mooy ndaje mi waaye ñaan moom fu ko waaye defee rek suñ borom mën na ko nangu te ñaan mooy ngànnaayal jullit waaw jërul kenn di ñëw ci bis ñaan gi daal mooy fu nekk daal boo jàngee la ngay jàng soo ko ñaanee nga yéene ko sëriñ Mor Kayré loolu mooy yitte yi. kàddu yi ak euh, waxtaan wi ak ni nga xam ne noonu nga tënkee muy bisu sëriñ Mor Kayré boobu nga xamante ni coppatiku ci am mooy woowuñu kenn ci daaru Xuddoos ci euh, ndigalal sëriñ Abdourahmane ni mu ko waxee kenn ku nekk fa nga nekk. na nga ko fa def ndax ñaan foo ko defee rek mu àgg ci boromam ndax ren jii kenn ku ne xam na ni mbas mi di Covid 19 nga xam ni moo lëmbe àdduna bépp lëmbe réew mi di Sénégal ba ci dëkk bu sell bi di tubaa moo tax kenn ku nekk fa nga nekk nga defe ko fa. mu mel ni kon Serigne Mor ci kaw mbas moomu sax xanaa taalibe yi nga xam ñu ngi lay seetaan soppee topp sa ginnaaw ci di la seetaan am di jàmm yeeg ñëpp du ñàkk message boo xamante ni ay kàddu laay biir. muy kàddu yu ndénkaan yoo xam ne daan ko def jëmale ci ñoom ngir ñu mën a fagaru ndax olof nee na xoddi ko ca bala ngay lakkale daw ca ba ngay ami tànk ca kër docteur am na lu ñu digal sëriñ Muntaxa itam am na lu ñu digal kon ban message ngay yëkkati jëmale ko ci ñi nga xamante ni bi ñoo ñuy bàyyi xel jamono ji. message bi ñuy yëkkati mooy maanaam feebar bu amee gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa daa waxam ne bu feebar masaa am te muy nekk luy wàlle képp koo xam ne fekk na la ci barab mu ne nga toog foofa ba tane ku mu fekkan foofa bul génn dem fenn kon ñu gën a sàmmante ak ndigal yi ndax lii ñu ñuy digal digalul ko ngir dara da di doomu aadama lépp luy am walla boog bala ngay am ñaari soxla wér da ca bokk kon nan sàmmante ak ndigal yi nga xam ne état bi joxe na ko te biñ ko joxee Cheikh Mamadou Mountakha xam ne lii lu am la daa yëkkati ñaar téeméeri noo joxe ca teewul waxaat ne nañ dimbali bokk yëpp ndax toog daa xaw a métti kenn ku ne toog sa kër ngir yëf yi bu jeexee ñu mën a delluwaat suñu yitte état bi koy digle wala ministre de la santé bi koy wax defu ko ngir dara lim ci jublu mooy xañ na doo koy def rek ngir kaaraangay doomu aadama yi ndax ñoom loolu mooy seen warteef la leen war na ñanga ca kon nag nan sàmmoonte ndigal yi nga xam ne moom la ci yor santé bi wax wala ñi yor santé bi li ñu wax mooy saafante gi ñu moytu ko moytu daje yi moytu tam euh, di génn bañ a takk maska moytu tam génn reso ak région département yi sax war nañ cee man a moytu ko waxuma laaj nag di génn région ak région moytu gaaram place yi ak yëpp yoo xam ne day niru loo xam ne day tax feebar bi ndax ci yu mel noonu rek ci lay ci lay yokkee te bu ñëpp toogee rek yëf yi mën naa saafara ndox ku xool ci bitim réew na mu fay demee danoo mujj def couvre-feu boo xam ne total lay doon boo xam ne kenn du génn dem fen lépp loo soxla maanaam da ngay woote ñu indil ko wala boo ñu am ñaari bis yu ni tànn yoo xam ne da ngay génn dem jënd la ngay jënd génn ñëwaat ci kër gi te fii àggul foofa may nañ leen nga xëy di circuler ba 20 nit ki nag loo xëy di euh, di ko dàq ci suba teel ba ba ba ba jant bi soto mënoo ko jot bu yeboo ko toog noppal te xam ne moom boo boo boo fanaane woon dox tam doo ci jot kon nag ne nit ñi bàyyi xel bu baax lii ñuy wax maanaam muy mbooleem bokk yëpp bokk sopp yëpp bokk taalibe yeeg jullit yëpp li ñu yéene suñu bopp rek la leen yéene buñ sañeen yëf yi ñoo ngi ñaan ci barkib suñu borom yàlla génn ko fi ak jàmm génn ko ci àdduna bi yëpp rawatina Sénégal gii musal ci mboolem jullit ak mboolem taalibe yëpp loolu rek la ñuy ñaan ñu ñaan ñu gën a sàmmonte rek ak worma yi bu ñu ko defee rek sëñ Moussa li nu bëgg lépp yàlla mën nañu ko ca defal mu jeex ñu delluwaat suñu yittee ndax yëf yi dafay jaar rek yàgg-yàgg day jeex fexe ba nag moytu ba nga xam ne maanaam doo ko dala doo fexe ba mu wàll la ba ngay wàll kenn loolu kenn ku ne war nga ko ébdeel sa morom rawatina bokkum jullit jullit bu ne war ngaa taxaw taxawaayu xam ne lii kat bu bu jaaree ci man mën naa jàlle ci keneen naa fexe ba man fegu ba ba du ma dal fegu kenn nag nga toog comme xam comme boo toogee si kër rek yàlla mën na la ca musal na ñëpp toog seen kër moytu saafante gi ñuy wax buñ ko defee rek yàlla mën te suturaal bi ci des tam mooy nii ko Seex Mamadou Muntaxa waxe bërki dem ci sëriñ Mamoo say jaxate mu wax ne na nañuy dimbalante ñi dend ak i daara ak dend ak néew gi doole nañ leen di dimbali te yàlla tax ndax jamono ji ñëpp ko soxla jamono ji jamono joo xam ne métti na lool képp koo xam ne tane nga nit na nga rawatina weeru mag wi yonente bi salaa lay law daana wax ne wala waxaan na ne képp ku dimbali doomu adama lu tollook xet miir loo xam ne mooy nekk ci biiru tàndarma bu lu weex loolu waxuma la doomu tàndarma te it loolu képp ku ko def ne ne tiyaabam ëpp na asamaaw suuf te it képp koo xam ne leel nga benn jullit ne na moo gën tabax junni jàkk bi ci des sam ne ne nit ku woor ba ngoon nga jox ko maanaam ka dëkkee woor yow mi ko leel yow yaa ko ëpp tiyaaba kon nag góor góor di dimbalante ci jamono ji ñu toll di di di di jàppalante te yàlla rek tax ndax looloo suñu borom boole ñu ba mu naan waxtasimo bi hablillahi jamin wala tafaraxool lii rek la ci jublu woon ab jullit day yéene lam yéene boppam da koy yéene mbokkum jullitam fekk loola nekkul ci yow sax njullit des na ab taalibe fekk yéene woo li nga yéene sa bopp yéene woo ko sa mbokkum taalibe sax taalibe des na te sëñ Tuubaa noonu la waxam ne ay taalibeem yëpp nos na leen ci yéen buum kon nag nañuy dimbalante ñun dëkk bi daara yi ñu dendal ak ñëpp nañu dimbalante njabootu sëñ moor gi nag wala boog ñi nga xam ne dana ñëw ci bis sëñ moor bis bi tam téewul képp ko xam ne ndimbal yi ñuy wax am nga ci benn yitte boo ci bëgg def soo ko joxee tamit danañ ko jotale ci ñi ñi ko ñu ko war a jot ndax am na ñu ci daa jaayante lu bari ko ci def waaye incha allahu rabbi lépp dañ koy fas yéene defaat ay ay ay xéewal jox ko ñi xam ñi nga xam ne yelloo nañ ko loolu lañ fas yéene maanaam lu daa ñëw ci bis ba nga xam ne dañ ko yëkkati woon jox ko ca bis ba danañ fas yéene ko delloowaat ko ci ñi nga xam ne yelloo nañ ko dimbalee leen ko te yàlla tax loolu daal ci la nekk ñun jërëjëf sëriñ euh, Mamor Kayre yaakaar naa kàddu yi mat na message bi nga lancé itam jot na laaye biir gi itam macha allah àgg na kon mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ñu doon seetaan kon lii rek mooy li nga xamante ni lu bëri la lu tuut la ci lu bari ndax sëkk ak sëñ Mamor Kayre jotaay ci mun ñoo yaatal lu baree baree bari ndax jànkatu xasida la ba pare kilifa diine la di sëtu sëriñ Mor Kayre war nañu ma a séq waxtaan wi mu gën a yaatu waaye nag lu jiw a jeexul jógu fa ca yaakaar naa ca kanam daan ko def ak moom mu mel ni kon li ñu wax mooy képp koo xamante ni daan nga indi say hëddiya ak foo man di nekk ci biir réew mi bitim réew su agsee daañu ko jot def ko na nga xamante ni noonu la ko ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké santaane ci dimbali daara yi ak jàppale daara yi ak itam yóbbu ko ci ñi nga xamante ni ay woy ji néew doole lañ kon li ñu wax mooy màggal gi dañ ko dañ koy màggal waaye nag dañoo soppi màggalin wi muy anam bi ñu koy defee la ñu soppi ni ñu ko bëgg a defee nag mooy ñi ne ci kër gi jàng fa alxuraanul karim la ñuy defar ci ay xéewal ki bernde wala loo xamante ni mën naa yegg ci néew yu doole yi ñu def ko mu jëm ca ñoom kon yaakaar naa ren noonu la ko fa yéene defee ca kenn ku ci nekk fa nga nekk ci biir réew mi ak bitim réew nga defee ko sa kër ñaanal euh, Serigne Mor Kayre ñaanal Seexul Xadim Xadim Rasul ñaan itam umma islaam yi yëpp kon ñi ngi santaat Serigne moor Kayre di sant Serigne maam Thierno Faye mi ñu nekkaloon ci wàllu caméra bi di sant mbooleem ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel seen site internet 24 acti di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir koor gu ñu nungu ci barke seexul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.